kon bu may toog di waxtaan ak président de la république président Benno Bokk Yaakaar mu jox ma parrainage parrainage boobu nag ma sant ci aussi ñu mel ni équipe bu ñoom Pape Mayel Thiam toog nañ ca seen permanence boobu presque ba trois heures quatre heures du matin pendant plus de deux mois day amul responsable bu ñëwul seet si ma foofu ma def loolu ërbatiku wër Sénégal booba dafa fekk ma waxtaan ak président Macky Sall am accord ak moom sur la présidence de l'Assemblée nationale. man néew ma ci politique néew ma ci politique du ma ci apprenti te ku ci am fula laa nag wan kenn du ma toog maanaam ba dernier moment nga naan indil sa këyit loolu amul li am li am. mooy danoo discuter li ñu waroon a discuter ñu am un accord ferme sur la présidence de l'Assemblée nationale noonu la ma ko amee d'ailleurs parce que ba mu may nommé conseil économique social et environnemental waxtaan nañ ci ba ko deux mois avant donc président Macky xam na ne li may dëgg la xam na ne loolu moo am loolu moo am s'il vous plaît s'il vous te doon dugal sax ay alxuraan ci mbir yi waaye ku tegoon fii kaamil ñu teg ci suñu loxo parce que loolu moo li am nag mooy le 12 septembre bi ñuy bi ñuy installé le bureau de l'Assemblée nationale 9h26 ci suba ci la ma woo yónnee ma message ne ma ndax ma woo la ma ne ko man daal seet naa ko ba seet consultation naa waaye damay changer avis diw laay def président de l'Assemblée nationale. 15 minutes avant ñi mu yónni ñëw pour jox information yi député yi loolu mooy li am leneen amul. heureusement d'ailleurs ma sant yàlla nekkaat jàngu ko. politique nag bu ñuy def weer waa nga sàmm sa xol bi. loolu. doo doxalee noonu ak sa responsable doo doxalee noonu ak sa jigéen doo doxalee noonu ak sa am ni jàmm loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ko wax ndax moom ci boppam xam na ne fukki at muñ naa ko mu ci am ay injustice yoo xam ne yii ah ñëpp fekkee nañu ko ba mañ may jógee primature bi ñu ma wax noo gagné woo Grand kon da war a def waaye defe naa ne premier ministre bi maa ngi koy ñaanal góob ma ne gagné na Parcelles Assainies góob ma ne gagné na bureau de vote góob ma ne gagné na Dakar waaye à chaque fois Mimi moom cas spécial lay doon.